bien sûr vous êtes sur Wassare ah, ñu jaral ki nga xam te ne moom mooy Moussa Ndoye wax dëgg yàlla mu nekk mbër moo xam ni macha allah ndax dañuy soxla lii combat bi yëpp da koo décortiquer ndax yéen loolu ngeen bëgg eh, mais Moussa. Mhm. après ba nga jógee ci ki nga xam ne moom mooy Lac Rose Moussa Ndoye nag. ma jël a yaatal nag. ma yaatal waaw allahu akbar bës bi mu daal. <laughs> Moussa Ndoye combat boo xam te Sénégal ñëpp ñoo ko doon xaar. combat bi bari bruit pour nga taxawal ko c'est tout un problème. nga jël ko gargam boosee. Moussa Ndoye nag xolal ndax gaa yëpp nag. waaw muy gaa yi sa combat ak Garga Mbossé. waaw sama combat ak Garga Mbossé. Ah. jël nañ ko ak su may mooy li ma wax ànd naa ak ñu ma daan àndal di jël làmb mhm. ñoom laa àndalaat jël làmb ñu préparé ji li war a préparé. def li ñu war a def ñu def si li ñu musul def si làmb investir si bu baax def suñu xaalis supporter yi jóg. def ci tamit gën a yokk ñëw préparer garga daan ñu. te dafa yomb ñëw daan waaw léegi danga may laajal rek. comme li nga daan laaj parce que nan laa doon parce que Moussa. parce bi ñu mhm. comme ni nga ko wax. Mhm. ñun jigéen bi bàkku tous mhm. mu neex loolu ñu fecc def rek. mais avant cosaan waaw ak lan bàkk beeg tuus bi Moussa ñun buñ jenc dañoo gis ni seen signature de contrat yi. waaw Moussa Ndoye. xadar bi ñu la gisee. allahu akbar mhm. ñu gis Moussa Ndoye beneen kanamu Moussa Ndoye mhm. ay ñu noonu ay garga bu ko Moussa Ndoye jàppee mhm. da ngay gis signature yi mu ñëw def nii <laughs> yéen journaliste yi yéen a ma um. xam ga Moussa Ndoye ñëw da ngay gisaat beneen kanam Moussa Ndoye nekk Moussa Ndoye da nga ñu doon cenc. non du cenc parce que xam nga tax man na laa mel man mosu signature contrat li ma ma la war a wax laa wax te du ma la dépassé du ma la wax lu ma wax signature contrat wax signé nañ ma ñoom ñu wax li ñu war a wax lépp def lu ñu war a def lépp moom mu dox li mu war a dox lépp def li mu war a def lépp kon tey su fekkee dañoo ñëw seeti contrat Moussa Ndoye loo wax nga waaw yàlla baax na eh, eh, eh, yàlla baax na d'accord nañ mais Moussa Ndoye loo wax nga ne ah mais yàlla waaw que le maire gagne wala nii ak nii damay may bëre damay daan loolu nga xam loolu laa xam mm-hmm. mais jur boobu mooy li ma wax. journaliste yi catu na ñoo catu catu catu bañ. sonn ah yéen ah, parce que man man man je man loolu laay wax man ba bi ñuy boo xoolee seetaanatal combat bi ñu def présentation bi. Mhm. bi ñu ma defee présentation pare maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi njug ci diggéew bi. mais yow avant nga njug sax bu ñëwee ci biir stade bi. gis ah. nañ ne Moussa Ndoye bi ñëpp na. merci xam nga du ñu ceeñ ci quoi. nga dañ ni combat bi nga gën a sonn nga ngay daan ngay daanu gis gargar mu dal waaw dafa dafa dal parce que booba respecté na ma. mais yow joxoo ko cër. non du manqué cër. du ko sama manqué cër de xam nga xam la mooy ñàkk respect mbër. Mhm. ngay ngay bëre mbër di ko dépassé. Mhm. non c'est-à-dire bu ñu mooy cest à ko waroon a jox joxoo ko ko. si si non si parce que bi arbitre bi nee prip mais avant avant arbitre ne brip ah. gis nañ ambiance bi ndax garga dafa ñëw indi li nga xamante ne moom mooy cosaanu séeréer cosaan toj estaat waaw yow nga ñëw indi sa cosaan mu def lu neex waaw toj estaat bàkku lu neex di njuug njuug na lu neex mhm. euh, vraiment fecc fecc lu neex parce que bokk na si mbër yi mën a fecc mhm. waaw vraiment maa ngi koy félicité waaw bu baax a baax a baax mhm. waaw bu baax bu baax yàlla def mooy li ma ma ñëw fecc man tamit fecc lu neex a neex mu fecc ma fecc stade bi di riir ñu daw di karante si stade bi léegi-léegi lu ne xam nga kii mu may tooñ sax ni euh, nga waxtee waaye garga dara tudd yaakaar naa day fecc téléphone am wadd ma for ko jox ko iPhone la woon ba benn journaliste naan ah lii fii la am bëri mbir moo ki muy àndal waddal téléphone nga jox ko parce que du question dara mais dañ nga jël maa ñëw maa ko for maa ko gis mi wadd ma ñëw for ko ñëw ni ko am ba après ñëw si moom sax affaire làmb lañ ko tegoon mais nee na sa téléphone la ma ne ko sa téléphone mu xool gëstu ni eh dafa wax merci jeex na mais ñu ñëw arbitre sifflé ma déglu déglu déglu déglu parce que mooy li ma wax mooy bu arbitre dinaa dox sa kaw ma déglu ko déglu déglu ñëwul. piégé la naa dem fekki ko. garga piégé bi ma ñëwee ñu daw téyante man ak moom ma def fët fët bi mooy que ku jumul doo daan bi muy daw di plaqué agsiwul dafa yëndu taxawat ma plaqué mu. mu jiital ma bi ma dóoree mbot mu jiital ma waaw mu surux bi mu jógee ma fekk si tribune ba félicité ko jeex na ah, ñu ñu nommé Moussa Ndoye ki gën a discipline ci làmb. non Moussa Ndoye xam nga da ngay ceeñ ci gars yi tax ngay ceeñ ci mooy. Ah. sa combat garga garga da la piégé. ndax la nga foogoon moo amul. waaw léegi dafa piégé. ma dugg si piège bi nangu ko. nangu ni dugg naa ci piège garga. parce que piège naa 14 combats yëpp dama leen piégé daan leen. Mhm. kon tey bu yàlla defee loolu mu dugg ci piège am man nangul ko ko parce que dama ne c'est pas la fin du monde. lu mu wàññi ci yow. lu mu wàññi. parce que Gargam Bossé Moussa Ndoye combat bi mhm. da nga waxoon ni munoo bokk ci lu koy ñàkk lu lay ñàkkloo combat ba parce que tamit dafa am la waroon yóbbu te yow yow da nga amul confiance que ni carrément Garga da nga koy daan Moussa déception nga am total nga am xam nga déception xam mooy naan ku gëmul yàlla. mais nag euh, wax dëgg yàlla na xam ni daanu na. mais nag moom wax dëgg yàlla bii mii am na fu mu la yóbbu mais damaa daanu xam ni daanu na. parce que wax après Moussa wax dëgg presse bi xam nga. waaw <laughs> ah xam ni daanu na. Ah. ma sante ko yàlla rek. Ah. bu baax mhm. nga daanu. Mhm. gaa yëpp di laaj. kan ñu gis ni dañoo seeti ama neex. te yéen non déglu ma waaw ba léegi. ñu seeti ama neex. ama neex di lébu ah. te dañoo déggoo ñu ne yéen lébu yi ah. doo bëre seen biir ama neex taxaw ne yow daa am loo ko wax ah. combat bi moom force mm-hmm. dafa bëgg dafa war a am Moussa Ndoye ama neex yéen ñaar lan la du dara maa ngi nuyu ñëpp ndax olof lu yëngu ko yëngal doole mm-hmm. te teggatuuma du ragal la ama neex su bëggee dimanche mu jël avance ñu bëri sama avance si moom lay tage maa ko waxaat mu dégg ma mais tagewul ci man bu yàgg laa joxe sama accord. pour yéen ñaar bu ko mën a tëgg na ko tëgg du question ay dañu am problème amuñu ah man de aw ma problème ak moom. mais yéen ñaar yow lan nga parce que yéen ay lébu moom dégg xam nga moom dégg naa mu ne du ma lébu na bàyyi yooyu muy wax nee sama lébu ndax wóor na ko wooru ko mm. na yooyu ay détails la bu mu dugg si côté boobu mm. ndax nit ku nangul ko lu mu doon man dama ko nangul li mu doon man je je suis fier d'être waaw fier naa si la ma doon moom nag li ma ko mën a wax mooy que combat bi toog na fu ne wax ne combat bi nii ak nii ak nii moom combat bi bu ko bëggee benn man bëgg naa ko téeméer bu pare na bàyyi ba pare nag. ku la moom laay wax na bàyyi ba pare. bu yàgg laa joxe sama kor billaahi wallaahi wa taalaahi joxe naa sama kor bu yàgg toog di ko xaar heure bu ko bëggee jour bu ko bëggee bu bëggee dañ ko def instant tënkee. waaw nga xam mu ñëw mu ñëw esaat ma feesal esaat bi man. ma feesal esaat tëngéej waaw da da koy feesal mu ñu esaat bi day fees man moom jàpp naa ne man nañ ma jox benn tribune maa xam ne dafa leer maa moom. mais yéen léegi da ngeen bëri seen biir. xam ma dafa ñuy def bëri ak Moussa Ndoye Moussa Ndoye day bëri ak moom man loolu laa ko jàppee rek. Mhm. parce que tey jii esaat bu may dugg du ma rus ndax li tax du ma rus mooy dama am ka nga xam ne da ko mat Babacar Mbengue day jël lépp teg ci loxo Pape Baro Pape Baro day dolli meenu wàññi muy maire Yarax maa ngi koy nuyu kooku combat bu ma am mu def si ba yokk Pabara ñëw dolli def set dañ may jox ay 1017 may ma ay bii may ma ay kaar res yu bare bare heure bu ma daanee guddi bu ma bëree ba pare guddi googu xaru lëmm laay lekk. xaru lëmb lañ may lañ may lañ may lañ may lañ may misiwul. kon daal ama neex combat bu tagee si yow. du tagee si man. mais danga nga defoon benn déclaration. waaw nga ne Sa Thiès wala année balance Sa Thiès ne instant bi yow moom yéen ñaar moom seen combat moom wax dëgg yàlla nekkul. actualité. waaw nekkul actualité moom Sa mooy li ma wax rek euh, comme li mu wax man wallaahi azim boo si waxuloon du ma wax si du ma si Sa parce que mooy li ma wax journaliste booy wax sax ni Sa Thiès man la duñ tëb loolu. parce que mooy li ma wax. parce que duñ ko seeti na xooli na xooli li ko gënal. ma xool li ma gënal. mais la waxoon dinaa ko waxat jaan ci suuf tànk suuf yàgg yàgg daje. waaw te gëm nga ni incha allah yàlla. bu ñu yàlla gi bàyyee fii rek ñu am wér ak wér la mu am wér mu am wér. yàlla di ko may jàmm di ma may jàmm di ko may ay ndam di ma may ay ndam jën daje. su combat ak Diène Kaïré lan moo tax mu tàkk. combat ba mënu nekk. ndax la waaye rax ñoo ko bëggul. du man. Ah, du ci yow. man nee la dama nekk ndawal yarax la tax nga jël ñu ne jëlal combat bi duñ dem sat mm-hmm. du ko jël. mais promoteur kii na ma si xaw ma nu mu tuddee sax. promoteur foofu la dëkk seen koñ koñ ñoom booy bi. koñ ñoom la dëkk. <laughs> woo woo na ma di expliquer ma ne kon loolu woowu ma sax man dafa am woo nit te avant moom mooy woo sax kàddoom ñëw na si ma ba pare man leen man loolu samay supporter ni ma carrément boo ko jëlee du ñu dem stade te man ñooñu laay liggéeyal ndax man lu lu may sonn sonn sonn ñoo may gën a sonn waaw ndax ñoom ñooy bañ nelaw man damay nelaw ñoom ñu toog di ma garder kon tey ñoom damay topp seen i tamit benn instant ñoom nee nañ boo jëlee combat bi du ma dem kon du ko jël waaw moom bu ko ay supporter waxal loolu du ko def waaw Mor Anta dégg nañ ko tamit kii la. non Mor Anta man Mor Anta ay waxam sax man pare naa si man mayu ma ko défense. mayu ko man mbër muy crasse mbër bëgguma ko. day crassaatu quoi loolu baaxul mbër da kii quoi da ngay dal. Mm, waxam daa kii. waxam dafa xaw a kii daal na nañ bàyyi ba si kanam xëy na moom tamit mën na am ñu bëri mais Mor Anta moom mm. baax na. daam ko ma yóbbante sa combat ak Yékini Junior est-ce que pare nga pour jël avance boobu. suñ ma ko joxee. pare nga ma ko joxee mu nangu. Moussa instant pare nga aw ma problème boobu de non wallaahi aw ma problème yooyu man yooyu sama problème man problème combat du tagee si man nit promoteur yi laa ñu may dégg promoteur musul seet si Moussa Ndoye Moussa Ndoye waxal la nga xam da ngay dellu te man danga may tëgg man la dinaa jëndal ay billets ci sama xaalis ñu ngi may dégg. li nga xam ne moom moo fi nekk muy dese euh, Jules Balde Junior. Mm-hmm. Euh, mu nekk seen rakk. Mm-hmm. nekk seen lépp wax dëgg yàlla duñ jeexal te kiiwuñu ci ndax ñu ngi koy waat waa Pikine di ko jaale Ama Baldé Jules Baldé Junior yan relation ngeen amoon yéen ñaar waaw Jules Baldé relation miinante lu bari su ma juumul benn lañ mos bokk journée may bëre muy bëre non sama benn booy di bëre mu mu siy benn jour lañ mos a daje géej daan nañ daje géej nag romante ni nuyonte mm-hmm. benn jour lañ mos ñi ñu taxaw tooñante mbalagante ak yooyu mm-hmm. di ko ñaanal yàlla na yàlla yërëm xëri ko aljana di ko jaale képp ku dëkk Pikine mais rawatina nag di ko jaale Boy Niang ak Eumeu Sène mais rawatina Ama Baldé bi mu doon àndal ñu ngi koy jaale Ama Baldé ak Jules Baldé bu mag ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale di wax yàlla ko yàlla yërëm yàlla na ko malaaka yërmande teeru di wax yaayam yàlla na ko yàlla may xolug muñ vraiment euh, metti na nag mais nañ ko muñ yàlla nañ ko muñ loo parce que ku ku mooy li sama sëriñ daan wax rek ku sa xel dem si yonante bi fu mu tëdd war nga mën a muñ lu ne waaw yàlla na ko yàlla may xolug muñ may ko lu lu gën lu gën Jules waaw yàlla na ko yàlla may lu gën Jules Balde nit doomu yaay la woon yàlla na ko yàlla yërëm euh, di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekk tëdd si loolu hôpital yi yàlla na yàlla leen ñi nga xam ne ñoo nekk barsàq yàlla na yàlla suuf ayib seen kaw di wax ni tamit waa Kër Mbaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax suma rakk yi ne fa foog samay yaay ak samay mag ñëpp maa ngi gërëm Touba njaay Mboro Ngor Wakaam fukki penc ñaar yëpp bokk surtout waa yarax ama seen fay jël nuyoo bi teg si loxo Babacar Mbengue monsieur le maire mu joxal ma ko ñëpp ñi nga xam ne ñooy conseillers municipaux yi nekk fii yëpp ma jël nuyoo bi jox ko ki nga xam mooy Pape Baro l'infatigable laa ko tuddee waaw jàmbaar la wax dëgg yàlla jël nuyoo bi jox Abdou yi na ma ko wasaareel si biir fan si club bi nuyu yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk su may mag muy Pape Sini Serigne fay su may mag lañ su may xarit lañ su may kilifa lañ nuyu wax dëgg yàlla nuyu axlu làmb di ñaan lamb yàlla na saison ren bi dàq saison yi ñu passé yëpp. nga gisee waaw co combat yi taxaw yëpp neex na. yëpp combat yi ma dégg ñu taxaw yëpp. Mhm. combat yi neex la. yow sa sama combat bu ñëwee mooy loolu rek. Ah, mais promoteur yi non man amu habitude nag di wax ak promoteur. man sama manager rek Père Ngouda bu ñu waxee ñoom rek. Ah. parrainage nuyu Ikile Rax ñëpp maa ngi nuyu ñëpp. yarax koo xamante la nekk waaw Pape Moussa la tudd taalibi sëñ Babacar neen daf lay bëggee bu baax a baax nee na mi ngi lay nuyu Pape maa ngi koy nuyu moom tamit sama tooma boobu ah, waaw borom Italie ah, ah. maa ngi lay nuyu Bergamo wala Milan wala fenn ak fenn maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah di la wax ni la waaw Italie neex na tuuti rek waaw neex na quoi mais di la ñaanal yàlla na yàlla defal sa sa foofu mu yaatu lool ndax euh, ma moom su ma su ma nit la